moom mooy euh, <laughs> Samuel Badji Samuel Badji dafa mel ne gars yi delloon nañu euh, gars yi yéen waa affaire responsabilité euh, mag bi li ñu fi bàyyoon lu fi yàqu rek dafa mel na yéen a yor nguur gi yéen ko waroon préserver ñeneen fekk si leen dafa mel ne yéen a yàq kon président message bi mu wax si waxu aada bi waxu mag yi li ñu fi nañu rafetal dafa mel ne si d'abord lan nga si mën a addu comme élément de réponse Merci beaucoup, mon frère m'a partagé plateau bi intervention je crois que les bonnes femmes ne vont pas. ko suñu maam yi nekkoon référence Nous avons ko jëlee exemple spirituel Serigne Touba Baye Niass Alaaji Malick spirituel mënul dem sans le temporel Dikoyo yooyu rafet les ba mo comportement ba léegi mu ngi ci d'ici depuis quelques années je veux dire euh, dañuy dégg ci discours opposition bi ñoo nekk au pouvoir ay propos yoo xam c'est des propos violents Sénégal yi xamul wax dañ koy ormal wax day rafet même doon da ngay dem conquête au pouvoir histoire Sénégal ba tey dëgg la am nga la nga wax lu am solo diggante Abdoulaye wat Abdou Diouf mais nu mu yàgg-yàgg dañuy toog ci table bi waxtaan parce que réew mi ñoo ko bokk réew mi kenn mënu ko pàccoo dañ koy peccoo mais mu ma président de la république

Bataille en tant que chef de l'État présent de la République de notre pays moi wax propos des propos de menace des propos etc. yo ne bu mais je crois que non non menacé non non mais il était dans à l'époque. mais mais quand même avec un ton <laughs> C'est important, hein? a le droit au pouvoir mais c'est propre. Donc, monsieur. est-ce que premier responsable à au apaiser. mais la preuve aujourd'hui son discours. est là que nous avons un non discours. Maïma Maïma non non eh, non Sénégalais nous tax ñu ku dégg ay waxam wax ni discours responsable wax ni koo xam ne taxaw na li mu daan taxaw démb ak tey pour que réew mi am jàmm